tey ñu am mbégte di dalal Baba Ndiaye ñu gën ko xamee ci Ngaaka Blindé Baba Ndiaye nuyu nañ la. waaw maa lay fay di la di di kontaan ci dalal bi di nuyu aussi suñu mbokk internet yëpp fu nekk ci Sénégal ak ci àdduna bi am sens seetaan entretien bi man Ngaaka Blindé maa ngi lay nuyu di la Cheikh bu baax a baax a baax. alors merci d'avoir accepté notre invitation alors Baba Ndiaye lan moo la dugal euh, ci wàllum rap. Euh, rab bon musique d'une manière général man euh, na ma ko waxee wax naa ko si benn morceau bokkul woon ci samay euh, bokkul woon ci samay rêve quoi bi may gën a nekk xale nekkul woon musique laa opté woon def su ma su ma màggee quoi amoon naa yeneen bëgg-bëgg yu ma bëggoon réaliser si live mais comme on dit rek bu la yàlla tracé yoon moom ala kulli àll foog nga jaar jaar ci rek parce que bi may gën a nekk booy laa doon foo. découvrir musique à travers euh, Fou Malade ak Pacotille ci benn morceau bu ñuy wax cukunaam cukul quoi loolu c'est récent tam tam ñu ne xale la quoi mais loolu yàggul trop bi ma dégloo loolu mu neex ma ci laa commencé di fo di def musique commencé di freestyle improviser yi ma doon def nit ñi commencé koo bëgg di ma invité rajo may def ay freestyle nit ñi di woote et ce qui me faisait plaisir et affaire bi commencé ma neex quoi ma ni naa continuer di di fo def benn morceau ñaar vite fait nga gis sénégalais commencé bëgg li may def nit di ma sollicité ma commencé def ay tournée ay plateau top c'est parti noonu la affaire bi demee ba finalement ma accepté mu nekk euh, profession ci man nekk un métier et mettre tout ce qu'il faut pour que liggéey bi gën a carré loolu moo dem ba indi Ngaaka Blindé fii tey quoi. donc euh, si je comprends bien c'est un truc boo xam ne c'était pas prévu alors pourquoi Ngaaka Blindé c'est waaye parce que tout juste après ma commencé di bëgg rab parce que man son yi ma son yi ma gën a marqué yi tax ma bëgg rap bokkoon na ci euh, mise à part euh, bu benn artiste bu tuddoon marabu bu sama benn tonton doon déglu après bi ma nekkee ci koñ bi géejawaay nawetaan yi dañ doon organiser ay ay ay concerts yu ñu doon maye y avait un fu Fou Malade bi ñëwoon si concert bi ànd ak Pacotine dem si yàlla si na ko yàlla yërëm son bi génnagul mais ñi ko doon foo ci kaw seen bi naan cukunaam cukul cukuna kay et tu vois cukunaam cukul yàggul dara quoi. donc cukunaam cukul bokk na ci morceau yi ma gën a attiré parce que ma nekk artiste rappeur. donc du coup bi ma commencé di ko fooyee nit ñi di ko bëgg j'avais la chance di côtoyer Fuma Lab mhm. boobu bi ma koy côtoyer di gis ay Fuma Lab ay ñagas. ah di commencer am chance di jege ay Maxi Crazy Jili Bagdad bu cinquième underground je voyais que genre la musique surtout hip hop c'est une musique qui demande beaucoup d'ouverture mm-hmm. et man j'étais boy et je sais que ni am na lu bëri loo xam ne dese naa ko xam si àdduna je je me suis ni damay tudd ngaaka ngaaka buy xaw a refléter comme Fou Malade et blindé comme Bataillon Blindé donc à vrai dire Bataillon Blindé et Fou Malade ñoom ñoo ma influencer askan mu nekk mu nekk artiste rappeur. donc ñoo nekk sa source d'inspiration. d'inspiration. de bi may tudd Ngaaka boobu dama doon attirer attention nit ñi askan ñu xam ne booy bi di téye micro di wax nekkul nit ku am xam-xam tout en sachant que euh, le hip hop c'est une musique qui demande beaucoup de beaucoup de recherche et beaucoup d'ouverture quoi. d'accord Euh, mu ngi une musique qui demande beaucoup de recherche. Mhm. alors ñu gis ni que instant bi rap bi ça a beaucoup évolué léegi c'est quoi ton style à toi c'est quoi qui définit Ngaaka Blindé ses bon le de Ngaaka Blindé je pense que c'est euh, c'est c'est de rester soi-même sama style li def sama particularité mooy man man lay incarner je cherche pas di di essayer di copier. américains yi wala di copier Niger yi wala di copier mais damay stay man quoi et loolu moo def li loolu moo def sama différence ak artistes yu bari man ni ma mel dans la vie dans la vie euh, normale noonu laa mel si sama musique si samay son da ngay gis damay ree si samay son da ngay gis damay damay damay am benn nonchalance parce que noonu laay dundee sama live tu vois je pense que loolu moo reflété ci sama musique ba tax am beneen popularité boo xamante ni yàgg nañ gis quand c'est un artiste ou quand c'est une star rek dangay am looy incarné et ngaaka day reste nekk ngaaka mooy quelqu'un boo xamante ni comprendre dara quoi day nekk ngaaka et di si sama si sama biir style musical mhm. toujours ñu ci sentir en fait touche ngaaka boobu je pense que loolu mooy sama particularité quoi les gens après tout ils te connaissent pas dañ lay gis qu'à travers la télé donc mënuñu xam vraiment à part ñu lay côtoyer ta personnalité donc le vrai Ngaaka c'est qui en dehors de la personne qu'on voit à la télé je pense que moi c'est que je viens d'expliquer a ah, amul différence bu ngand mm. euh, je pense bien ni ma mel ci sama musique ni ma mel ci sama gaale ni ma mel ci sama gars yi noonu laa mel studio noonu laa mel fépp fu ma mënti nekk quoi tu vois à chaque fois damay bëgg may nekk rek nit ñi di nit ñi di di nekk ci jàmm nit ñi di kontaan nit ñi di bëgg et loolu laay incarné ci sama ci sama musique oyof essayer tout tout le temps di aspirer le bayfalisme même bu fekkee yombul mais ni ma koy incarné ci ci sama life ni ma koy incarné ci sama koñ noonu laa koy incarné ci musique je cherche pas à avoir ñaari identité yu yu bokkul quoi damay bëgg tout le temps di nekk man ci fépp fu ma nekk ko c'est important alors ñu gis ne que génne nga benn way King Baba boo xam ne ça a beaucoup cartonné. Hmm. Euh, nan la dikkee et ban message moo ci euh, découlé. bon comme lu ñuy wax musique moom dafay nekk affaire boo xamante ni yenn saa doo ko sax comprendre mun nga def musique boo xam ne da ci def coono bu énorme am portée nga gis benn musique boo xamante ni da ngay ñëw. ah fosi rek après nga gis ni mu def tabac et sooy xool particularité King Baba mooy mooy comme li ma doon wax ah bayfalisme bi bi Ngaaka Blinde incarné ci biir musique bi ah la Ngaaka Blinde de flow la Ngaaka Blinde de rhyme la ngaa Ngaaka Blinde de technique ah la Ngaaka Blinde qui cherche toujours di am ay sonorités musicales yu yu yu local mooy les percus tama yi si biir musique bi et loolu yëpp dafa dafa nekk benn package boo xam ne. dafa nekk ci King Baba di profito di euh, di di saluer beatmaker bi def musique bi mu tudd Zoom Zoom bi def musique bi nga xam ne musique la boo xamante ni dañu essayer def tout de notre possible pour sénégaliser ko et le fait ñu sénégaliser musique bi tey dafa dem ba am portée bu internationale nga gis ni sénégalais yi déjà bëgg nañ ko parce que seen rythme la King Baba ayo King en fait ci vois dafa parler dafa wax sénégalais hip hop la mais hip hop bu bu bu bu bu bu bu bu laal disons comme ni ñu koy waxee ah euh, kii yëpp génération yëpp da ngay gis tey aujourd'hui ay xale de trois ans quatre ans di ko way ay mère suñu moroom yaay di ko way suñu génération si concert yi di ko way donc je pense que li def King Baba it bi mu doon mooy j'ai juste essayé de sénégaliser la musique à ma manière. tu t'attendais à un tel succès à vrai dire non bi may def musique bi euh, à vrai dire xalaatuma woon bokkul woon si musique bi ma doon calculer mooy nekk euh, hit de l'album bi ma koy def parce que comme je dis dama bëri ay fo ci samay musique e même bu fekkee gars dañ ma koy tere c'est c'est une musique boo xamante ni def ma si énergie bu énorme tu vois damay ñëw teg benn beat souvent gars yi ubbi micro yi rek may may cumuler idées yi di wax et après génn ko bëri na ay morceaux si ma morceaux si ëpp yi ëpp nekk it si des morceaux yoo xamante ni jëluma si coono liggéeyu moo ko sax si ay deux heures de temps. dafa comme genre voilà comme genre freestyle quoi tu viens au studio nga ñëw xam nga déglu musique bi ne waaye lii nice na de boo ubbil micro bi ñu ubbi nga def 4 barres 8 12 def benn refrain et après mu génn nga gis ni que it de quoi yeah donc xalaatuma woon. musique King Baba egg fii à vrai dire daf ma impressionné quoi. en mais même sur le plan tey da ngay gis ni ay codivoir d'Ivoire dañ koy teg la rajo ngay gis ay nit yoo xam ne duñ ay sénégalais xam nga ay tubaab di way son bi tu nga gis ni que aujourd'hui yaa ngi commencé di jaay musique bi si yeneen univers et c'est c'est c'est très important. ouais c'est important. léegi est-ce qu'on peut s'attendre à ce que nga def duo ak euh, des grands ténors comme euh, ay ñoom Awadi euh, Daara peut je pense que jot naa jot na peut-être euh, jot nañ démarché quelques artistes et réussir ñu à ñu am ñu am leen ci sama album ci sama dernier album di quoi tu mais ñoom comme ni ñu wax man en personne du ay américain du ay Daz FX Anix wala whatever ñoo moo influencé te aujourd'hui si je suis artiste rappeur c'est grâce à ces grands ñoom ñoo tax ma bëgg musique ñoom ñoo tax ma rap te su ma demee ba tey ma ma représenté dara ci ci sama life ci àdduna ci Sénégal c'est grâce à eux parce que ñoom la quoi donc euh, dina nekk nga ni plaisir si man peut-être si next album bi wala même balaa album bi ñu gis Ngaaka Blindé ak les grands ci ci benn projet quoi. d'accord alors euh, ñu dégg ne que euh, des rumeurs qui disent que ay lobby ñoo nekk derrière toi ñoo lay financé léegi ñu bëggoon xam ci c'est vrai ou pas. nga confirmer <laughs> ou nga infirmer. waaye bon comme mu dire ah, lobby je pense que c' est juste benn groupement xam nga bu am ay euh, bu am ay intention ci benn ci benn liggéey. tu vois am yéene wala am intérêt sax bu ñuy xaar en retour ñëw teg si loxo quoi. bu fekkee loolu la je peux dire que way am na lobby boo xamante ni ñu ngi si ginnaaw Ngaaka Blindé mooy sama gars yi mooy mooy samay mooy nit ñi nga xamante dañ ma sow love mooy samay manager xam nga mooy Idi mooy Tafa. mooy KBC mooy blende blende yi tu vois tey benn groupe lañ boo xamante ni ñu ngi nekk benn communauté la bu nekk ci benn ruq et à chaque fois ñu ngi xool nan la ñuy mën a def pour yokk Ngaaka Blindé doole sur le plan moral comme plan financier lu ci waay mën pour sama liggéey carré ni nga koy def bu fekkee loolu la ñuy woowee lobby am naa ko te mooy ñooñu nekk sama ginnaaw quoi. et tu en es cher. ah bien <laughs> euh, on va aborder un sujet un peu sensible c'est-à-dire euh, laudio la prison est-ce que mën nga revenir à oui tu en as déjà parlé que tu reviennes un peu sur cet épisode qui a marqué ta vie ça veut dire noo ko dundee ak qu'est-ce qui a changé en toi dañuy bëri li ñuy wax que jaruñu si revenir mais man tout le temps je damay naan c'est un sujet boo xamante ni dama si bëgg wax tout le temps parce que awma ci gàcce quoi. tu vois awma ci gàcce jàngal na ma lu bëri si life et et le fait que yàlla suñu borom boole ko si sama destin mooy am na benn mission boo xamante ni war naa ko ci dox est-ce que mission bi sax tàmbali naa ko ba tey donc euh, à chaque fois suñ suñ may interpeller pour ma wax si dama si sawar di si wax. comme ni ko Sénégal yëpp xamee dugg naa fa je dirais par par erreur juum si benn situation du ma wax tooñ ma mais juum naa si benn situation boo xam ne def naa ko bu jarul woon un an de prison quoi mais comme ni ñuy wax rek bu fekkee lu suñu borom tudd la munoo ci rëcc dund naa ko ak philosophie dund naa ko aussi ak gëm-gëm quoi yàlla aussi dooleel na ma jox ma kàttan bu tax ma mun ko gérer ci biir aussi gis ni sénégalais yi ci biti suñu bàyyi seen seen seen tànk suñu bàyyi seen loxo da nga gis nit ñëpp di compatir ak yow ci situation bi moo xam rappeur mbalaxmaan ah ah mbër politicien tout le monde dañ doon dañ doon métier de situation boobu et après bi ma ñëwee ci biir tamit comme li may wax wéetuma fekk naa fa ay nit yu am ay problème mais dañu jël seen problème fàtte ko jël sama problème def ko ñoom mu nekk seen problème ku nekk di essayer di ma dalal di ma defal ba ñi mu waroon méttee si man dëgg métteewul noonu quoi après permettre na ma aussi ma am ma am beneen perception ci àdduna quoi am beneen gis-gis et c'était c'était important parce que avant la prison c'était un gars que Blindé boo xamante ni booy la ndaw la et modestie à part am na tuuti tuuti succès ba mënul maîtriser ay nitam lan la war a def lan la warul def ña ñooy xaritam lan mooy àdduna je pense que loolu benn formation la woon bu suñu borom tracé si sama life pour jàngal ma ma gën a am beneen perception si àdduna gën a am gis-gis xàmmee ràññee ñan nit dëgg-dëgg mooy ñooy samay nit aussi nit boo demee ba toll foo xamante ni boo boo yuuxoo nit ñi yuuxu boo jooyee nit ñi jooy à chaque fois fooy teg sa tànk woon nga ko xam montré na ma loolu quoi. Euh, wax nga lu am solo comme quoi euh, tax na nga xam ñan ñooy sa nit léegi est-ce que mën nañ xam ndax tes amis d'hier sont toujours amis d'aujourd'hui avant la prison oui avant que ngay dund situation bi. am na ñoo xamante ni avant la prison samay xarit lañ. et pendant la prison mu ma gën a xam ni samay xarit lan et après la prison dama leen garder toujours ñu nekk samay xarit ba léegi maa ngi dund ak ñoom. mais am na ñoo xamante ni avant la prison jàppoon naa ni samay xarit lañ pendant comprendre naa ni du ñu samay xarit ndekete c'était juste le ngaaka de buzz de succès et de tout et après la prison meluñu niñ doon mel ko d'accord loolu mooy loolu mooy àdduna quoi. oui donc euh, jàngal na la nga am une nouvelle perception de la vie. tout à fait. d'accord euh, ce que mais album Secret 7 mooy sama premier bébé quoi mooy sama premier album de ma carrière. oui et euh, sant naa si yàlla bu baax a baax quoi sant naa si yàlla parce que gis naa gis naa succès bu mu am et loolu mooy ndam parce que nit boo nekkee artiste def presque sept ans de carrière sans album nga exister di def ay tournées tu nit ñi di génne ay album album sa kaw. te musoo musoo da laa koy wax musul la impacté ko c'est-à-dire duñu comprendre sax si ngaa Ngaaka Blindé def na sept ans de carrière sans album donc bi ma décidé def album bi muy Secret set mu waroon nekk deux volumes man ni naa génne premier volume bi muy volume one bi ma ko génnee même su nekkee contexte yi c'était pas favorable parce que période Covid lañu lañu la ñu fekkoon mais je me suis dit quoi qu'il en soit mu génn parce que bi ñu ngi koy xaar bi mu génnee alhamdulilah Dieu merci ma gis ni ko sénégalais yi ak accueillir surtout notre communauté hip hop genre rappeurs yi nangu ko suñu ay fan nangu ko suñu ay chroniqueur melomaan yi nangu ko ah ci intro bi ba ci seizième titre bi ñëpp bëgg son boo bu nit teg danaan bii son a daaxal bële yàlla King Baabale ak si kaso final incorrect abi son yëpp tey ku ci nekk am nga benn morceau boo xam ne tu dis que moom ma gënal nga gis euh, foo dem ci Sénégal nit ñi bëgg ko nga jaay si même bu fekkee vente aujourd'hui c'est pas c'est pas c'est pas aussi intéressant mais jaay nañ ci streaming bi nga gis sur le plan international nit ñi daw déglu ji ko message yi nga doon lancé ci biir album bi aussi nga gis ni nit ñi am nañu am nañu écoute musicale pour déglu la parce que nit mun nga ko mun nga ko mun nga ko déglu te doo ko dégg mais non seulement nit ñi déglu nañ message yi et dégg nañ fan ak fan la Ngaaka Blindé concentré wu ci album bi donc en tout cas man en personne am naa ci satisfaction je le dis pas nag pour ego mooy wax nii rek pour pour bég mais bég naa ci projet bi parce que liggéey naa ci def li ci war et gis naa Sénégalais yi aussi fi ñu ko jël ak fi ñu ko yóbbu quoi Euh, c'est yeah. important. sànq yaa nekk depuis nga commencé wéy ba léegi ça fait euh, sept ans. Mm-hmm. léegi ma bëggoon xam euh, ci sept années yooyu ndax am na loo xam ne ni genre t'a vraiment marqué benn anecdote boo xam ne ba léegi noo ko fàtte pendant ces sept années. Mm. on réfléchit. dafa bëri ah. dafa bëri dafa bëri loo xamante ni. Mm-hmm. marqué na ma ci sama sept ans de carrière dafa bari trop mais particulier. Bon, c'est pas grave, on passe à une autre question. <laughs> Alors, est-ce que euh, tu vis de ton art? daa maa ngi sant yàlla bu baax. maa ngi sant ah. c'est-à-dire. maa ngi sant yàlla mooy maa ngi sant yàlla quoi. <laughs> quels sont les projets de Ngaka? waa mes projets mooy la ñu ngi ci tournée bi toujours mooy euh, la suite logique suite logique de l'album euh, génne nañ ko def nañ promo bi ci waar sénégalais yi bëgg nañ ko après en temps donné kii nañ euh, levé nañ état d'urgence bi ñu ngi ci suñuy tournée depuis depuis je pense qu'il y a trois quatre mois ci ginnaaw ba léegi tooguñu chaque samedi chaque vendredi presque chaque dimanche ñu ngi def ay tournées ci région yëpp tàmbali nañ ko et gëm ni dinañ def région yi nekk Sénégal yëpp quoi sooy xool jot nañ dem euh, jot nañ dem Kaolack wala demaat Kaolack une deuxième fois ah dem nañ euh, dem nañ euh, dem nañ ak fan dem nañ Tambacounda ah, dem Kédougou ah, def nañ pas mal de dates pour ne pas lim quoi et dates yi ñu demagul aussi incha allah bientôt dinañ ci dem donc ba léegi ñu ngi si am suite logique album bi mooy def la promotion et la tournée nationale à part ça toujours dañuy continuer aussi di promouvoir l'album et parallèlement n'oublions pas qu'il y a mon label KBC boo xamante ni aussi ñoom tamit ñu ngi si projet album di ci liggéey et on a sept artistes yoo xamante ni ñoom ñëpp ci sama label la ñu war a génn donc loolu aussi ñu ngi ciy liggéey et parallèlement aussi euh, y a le volume disons volume 2 bu album bi ñu ngi koy euh, ñu ngi koy ñu ngi koy waaj dañuy xaar bii xaw a jël suuf bu sénégalais yi doyalee rek ñu dolli deuxième volume bi et après xoolaat la suite quoi. d'accord alors euh, Ngaaka ñu jàll ci dernière question bi. Mhm. sànq yaa ngi tudd contexte Covid noo ko dundee ndax bokkoon nga aussi ci artistes yoo xam ne euh, dañ doon euh, bégal seen seen ay fana à travers le streaming ou pas. bon sooy xool si période Covid bi mooy période bi ma gën a liggéey aussi si laa gënoon nekk si finalité finaliser albam bi tu si période bu laa ko finaliser ba 7 décembre bi passé. album bi soog a génn. et bii ñu génne album bi sax équipe bi dañu waxoon wëy ak contexte bi duñu mën a tourner duñu mën a def lu bëri duñu mën a communiquer parce que duñu rassembler et je me suis dit quoi na album bi génn même avec Covid bu album bi génnee nit ñi ngi seen kër yi toog dinañ déglu album bi. dinañ permettre ñu gën ma dégg ba bu ñuy bu Covid bi di jàll boo ñëwee si tournée yi nga mën a am complicité ak sa communauté yàlla def bi ma koy génnee avant ma koy génne fekk na ñu lever état d'urgence bi mooy première vague bi bi album bi génnee aussi ñu demaat duggaat ci Covid bi bi ñu ko bàyyiwaatee ñu soog a tàmbali tournée bi quoi donc période la boobu boo xamante ni difficile na woon pour artistes yu bari. Mm-hmm. mais nous à notre niveau on a de. de de def liggéey boo xamante ni au moins dina bégal suñu ay fan base quoi. d'accord donc ça t'a permis de de plus te concentrer sur ce que tu. tout à fait tout à fait tout à fait. d'accord alors euh, Ngaaka interview bi